mooy doomi sëriñ Touba mooy juróomeelu xalifaam it waaye siiw na ci àdduna ñëpp nettali ni waajuram ni ko sëriñ tubaa tànnaloo tànnil wu doy la ndax maam Thierno la ne ko na fexe ba gisal ma ñoo xam ni duñu lekk moyaal te seen juróom-ñaari maam yëpp dañuy mokkal alxuraan xam nga loolu jafe la. maam na ba muy wër wax nañ ne wër na ba mel ni wër bi dem na ba sonn ndax gis loolu daa xaw a jafe waaye ba mu duggee nag fa nga xamante ne bi mooy mbaakol fa la gisee kër goo gii ñoom ñu wax ko ne ko agsi nga li nga doon wër muy ñoo xam ne seen juróom-ñaari maam mokkal na alxuraan agsi nga ñu xam ni soxna ma Jaxate fi ne njëkkut kër sëriñ bi soxna Fat Jaxate mi waajuru sëriñ Saliou fi ne moo fa njëkk moom la moom lañ njëkk a indi teg ko ci teg ci soxna Asu Jaxate ñoom ñett lañ ñoo bokk ndey ak baay ci kookee la feeñee man nag foofu danaa fi tàbbi mënumaa xam kan la waaye sëriñ Saliou nag moo wax ak man lii may nettali na ko àdduna teewlu bu baax su fekkee dëgg la man la concerné bu dul dëgg ci man lay aju fi ne amut lu lu lu muy abordel kenn ñi koy dégg nag comme neex man nga koo jariñoo ndax lu wér la màggalug 2004 ba mu desee ñetti fan laa toog ak moom jógee njurul ñuy waxtaan ba mu yàgg mu ne ma galas ndax xam nga kuñ ma tuddee man bi ma ko waxee xam nga ku mel ni Serigne saaliwu doomu Serigne Touba questionné la question bu toll noonu man ma xool sama bopp man maay kan ba tax ñu di ma wax loolu wala man lu ma doon ba tax ñu may wax loolu man a teg ba mu yàgg mu mel ni daal dañ ne ma waxal ma ne quoi ah am na ñuy wax yonentu yàlla saaliwu de mu ne ma defee nga koom te am na ñu fi toog jotaay bi ñoo xam ni xam nañ ni Serigne Saliou bu ne defee nga koom wet dig sutura la. ndax loolu ñun dañu am langage am neexutoon a xam waaye am na lu ñu xamoon ci moom tuuti mu ne ma defee nga koom ma xam ne jooju wax moom jërul avancé ma ne ko waaye am na ñu ne naqiyun taqiyun saalihun saalihun jooju yi nga xam ne naata la ci yonent bi ku set la ko ragal yàlla ku baax la am na ñu ne loolu yi lañ jël mu ne ma xaaral ma wax la ci li ma la wax yonent bi moom waxut ci mbiram moom dana ma xaaral ma wax la ci li ma la ci mën a wax bi ma feeñee ci njaarim xam nga nu sëriñ bi def ma ne ko ah déedéet loolu koy xaw ma ko mu ne ma kayit la jël ak bindukaay kayit weex tàll ak bindukaay déglu leen de sëriñ bi jëm bopp moom mi wutal tur moo ma wax ne ma sëriñ bi kayit weex tàll la jël ak bindukaay xam nga lum ci bind ma ne ko déedéet mu ne ma jege si nii ma wax la ko ma jege si booba daraan del tablier teg ci sijaada gi teg ci daju daju tiim yi waaye am na xuraaniye ba mu doon jàngee ci la ko teg xuraaniye ba tey ni mel xam naa xuraaniye bu wert la sëriñ bi jël xuraan yi bi teg ko ci ginnaaw ndax ci kees sëñ Modou la ci mbaarum mbaarum seng mi mu teg ko ci ginnaawam bind ci suuf ci kaw tàpp bi la bind bind alif na ma xam nga lii lu mu doon ma ne ko alif mu bind laam na ma liilum lu doon ma ne ko laam mu bind saat na ma lii lu ne ko saat mu bind alif na ma lii lu mu bind laam na ma lii lu mu doon ma ne ko laam mu bind aalonk na ma lii ma ne ko aalonk mu ne ma xam nga lu ci kiimaan ma ne ko déedéet mu ne ma asaali ha la sëriñ bi bind jox ko mag ñi sax la ci teg fekk sërif abibulaa ma nga toog nële sërif abibulaa mel na daa xaw a xel ci li ñuy waxtaane mu àndatu ba agsi na ma maasaa xaala cheikh sëriñ bi lan la wax keroog yàlla may ma ci làngu arab li ñu naan talaaxa ma waxeek moom kàddu goo xam sëñ bi day mooñ ndax xam naa ne kàddu googu ma doon waxeek moom man wóor na ma ni euh, moom mu man déggewu ma sax arab noonu ma tontu ma ko ba agsi foofu ci saaliha ji sërif ne ma man suubun bil madhi ñi jàng grammaire mooy am ndaxu saaliha wala ani saaliha dañoo wax ne baat bu nasabee am na lu ko nasab doonte gisoo ko ndax ndax verbe complément juger complément euh, verbe kon ani as saaliha wala am ndaxu saaliha parce que complément bu ñëw rek amul juger loolu loolu amul fenn arab du ko wax sëriñ bi daal di wàccee boppam ba mu tolloog sama nopp sëriñ fi toog de mun ne ma yow moom bu ko taawil bàyyi ko ni ko sëñ bi waxee sëñ bi ma ko wax de sëriñ sëriñ Saliou aw turam kenn mënu la cee wax loolu asaaliha diw lañ ko tuddee kii lañ ko tuddee kenn mënu la ko wax li tax nga xam ne sëñ bi nag tur wi naw na ko jël na doomi sëñ mu safaa ne tëf ne sëriñ Saliou sama doom laa ko tuddee jël na doomi sëñ Massamba mu sëñ Saliou ne tëf ne sëñ Saliou sama doom laa ko tuddee loolu nag war naa doy ñu xam ne turu sëñ ba mu Koki ki moy Serigne saliw mi nga xamé na toll na noonu nekk ci biir kër gi tay nak ma ngi len di yegal ni wa kër gi liñ doon liñ doon xum xum liñ doon bari bari waajuram la Serigne Serigne Touba mayon kër ci wetam muy kër gog ngeen rombu tam def Serigne saliw def loo ko si muram soxna Fat Jaxate la ko Serigne Touba mayon mu dendeeg moom te it soxna Fat jaxat dong la mayon ci ñi woy wa bar sax nekkon na sax ndam bu ndam soxna Fatou Diakhaté daal gis nga mbir moomu dama ciy juñ juñ boo xam ne juñ doy na borom xel fi la Serigne Saliou nekkoon moom sëñ Mayib Guèye sëñ bi da ko woolu 76 ci këram woolu si Moustapha Sall na ko wutal waxukaay yooyu yi mën a jël li ñuy jàng ndax damaa ko gisee jàng bi ñu doon jàng sëñ Tuubaa waa yoonu murit barkeelu ci ndax boobu Serigne Saliou ci xam-xam bi xam na ne mag ku faatuwul mag dina faatu te bu ñu yóbbaalee njariñu sëñ Tuubaa du am njariñ te dañ doon jàngee xasida sëñ bi noonu la bëgg ñu koy jàngee xasida yi teyit teyit am nañu toog ci jotaay bi ñoo xam ne xam nañ li may wax kaset yooyu la jëloon tasaare ko ci daar yi ñi jàng mën a jàng xasida yi ci daara yi ñëpp ci loolu lañ doon roy roy sëñ Mayib Gueye ndey sëñ Mayib Gueye bañ jàngee ba noppi mu ne sëñ Saliou mi nag danaa leen ci xamal tuuti daal bi ma nekkee ndaam si sëñ sëñ ndaam Abdourahmane Lo di ma tërbiyee na ngeen bàyyi xel ne ñoom ñoom sëñ Mayib Gueye eh, dañoo dañ fa mel ni dañoo niru ñaan njàngam mag ñe waaye gone lañ woon ci jamono sëñ Tuubaa bañ koy jàngal ay fi ne jàng sëñ Saliou gon jàng yi jàngaloo gone yi fi ne ma nga doon delloowaat na sëriñ Tuubaa doon jàngaloo gone yi mag lañ ci ñun nag waaye ba ñuy jàng ñoom sëriñ Tuubaa ay gone lañ xam nga ne ñoom bi ko sëñ bi ko sëñ Dame Abdourahmane xam nga ne kon kooku gone la woon sëñ bi dem soxla la rek ñu daal di composé euh, bi ñu dem fekk sëñ Tuubaa njaarim sëriñ bi nee na nee na soxna soxna si xëy toggal ko ndékki nee na daal sëñ bi tiim këll bi rek ne du ndékki mukk te sëñ Mayib Gueye ñëwut sëñ Mayib gei nene bima bi ma la ju ànd ak ndawal sëñ Mayib Guèye ne cere ju ànd ak ndawal la sëñ Mayib gei na bima ma xéewloo ci cere jooj yi ba nëga ni sëñ Mayib Guèye nee na booba laay gën a yëg ab xiif ndeke sëriñ Saaliw cere joojee la jox sëñ Mayib Guèye ngir ba ku ngir ba jangalo ko badd bi Kol googu ukiman te sëñ Mayib Gueye bis boobu la ko nettali njàng moomu ngeen dégg ci suuf moo kooku mooy sëñ Mayib Gueye sëriñ Saliou nag ci xam-xamam ci xam lu dikkagul loolu mooy mbiram man mi mas na maa toog dégg mu ne ligne équateur dama ko dama ko théorie waaye bi ma koy pratiquer dem naa ba bi dem ba Côte ngir xool na tiiru ligne équateur ba xam nu mu demee te loolu kooku koo ko wax fii te te te xamu ko mën na koo jaaxal lool mu ne na tiiru ligne équateur laay dem xooli ko ba xam nu mu demee te ku ne xam na ne ligne équateur fu mu jaar ñooy bokk heure London ak Sénégal buñ ne alwaahida tamaman bi taw xiit tawqiiti Greenwich ñooy bokk benn heure Serigne Saliou ci yëm boppam nag jàng ko ci téere ba paré dem diko pratique yi daraan daraan wax ni souf man na doon juróom-ñaari mètre am suf su doon fukki mètre néna na ñaari mètre gëna gëna sakkan fukki mètre yi lool nak daraan wax naan du xam-xamu baatin du dara daana toog ba mu yàgg mu naan salaw da ngeen defe ne lu xam ci dañ mako wax bu xam ci dañ mako wax rek kon lu ngeen nanguma yor len daal ne kenn ku nekk ci yéen li ci taatu gaa maa ko gën a xam daal ne sax seen kees sareet danañ toog xoolal seen kees sareet yi sëñ bii xam ne li may wax kees sareet ci la gars daan toog naan kafe ngoon mu seen kees sareet yooyu ngeen toog di waxtaan la ngeen fe léeg-léeg ngeen toog fa di waxtaan naan sump sàngam moo gën a bërim ñax kaddu sàngam moo gën a bërim ñax bu xëyee fa la ñuy xëy ni ngeen xamee barab yi am ñax yi seen tool nu ko raw laa leen xamee daal mhm. moom bañ na ko ba sax bëggam sëñ Tuubaa agoon na ci boo nee barkeb sëñ tubaa mun la mun la waat ko ci man mii te bàyyi sëñ bi sëñ bi sax sëñ daal ne sëñ bi kenn warut a waat ci moom dëgg boo waxuma la la lu dëgg neena na moom foofu la àggoon nee na sëñ dëgg sax desu ko waat ci moom ndax jëru ko nee na bu dee dëgg sax nga nga waat ko ci man muy gën kookeel daa wax daanaka li mu ko tudd bëriwut hmm? waaw ñëw na dara al mu xabir di waxtaan ak ñun ba ba ba ñuy tere ba ñuy tere tubéy ju gudd ne ne bu ngeen gisee ma di ko tere day xëy na dana sàng ay cër waaye li tax ma di ko tere day da day def saa yu ma ko séenee day métti lool nee na saa yu ma ko séenee ña yoroon ay kër ki ànd ak moom rek sama xel dem moo tax moo tax da ko moytu daal ne xanaa xamu leen ni leeri sama borom yi adduna fépp la lañ koy wàccee waaye sama daar di ci am cir bu rëy rëy rëy daal na malaaka yi ñemewuñ ko sol pantalon bu ñu koy sotti kon dee leen moytu. daal na waaye li ma ci gën a ñor nag mooy saa yu ma gisee koo sol rek day mel ni ñu yoroon kookee kookee kookee ña ko yoroon day day niru ni seen këkk yi day dem sama xel Sëriñ Tuubaa boo ko tuddee mu jooy waxtaanam du ci àgg bëggam àggoon na ci am na kilifa goo xamante ne bii da ko daan woolu ngir di ko waxtaan loo ci bi muy doomi sëñ Omar Mbàkke ji seigne tierno gelengel dafa xam seigne touba lol ndax seigne Omar mbake mo jaxassou seigne touba lol di bayam nettali ko te mom du fatte nee xisse yi ma sama bay wax seigne touba ken xamuñu toll amu ci ben mo fatte du du manami du badé ya. da ko dan woolu bu ñewé mo nako seigne tierno ma bëggu ñu waxtan seigne touba nee seigne tierno Cerno danaan ko yoonu geej nga bëggum njaarim nga bëggum jolof nga bëggum gannar nga bëggum mu ne ma ci jël baxna boo ma nee sëñ Omar nee na sëñ Touba nee na sëñ Omar nee rek mu fuddu fa la waxtaan wa yem du àgg nee na benn baat du ma ko wax nee na woon na ma bu benn du ñaar du ñett duñ weesu foofu kon ak bëggam sëñ Touba moom da doonut lees mën a nat cofeel ga daa réyoon ndax sëriñ bi da ko bëggoon ndax mën naa la cee jox benn misaal toog na ci njaarim di tàmmal di tombal mag ñi bi muy tombal mag ñi sëriñ Sall romb ko di daw comme nii tut tànk yi ba bu ba bruit bi xaw yëngu mu geesu daal ne bay day ak yari gone am naa ci ak gàllankoor ndax liggéey bi ma suñu borom liggéey ci yoon sa salaam waaye moom mee da màggee dara ma ko defal ngeen fàttaliku ni sëriñ bëggoon na ko ba xam naa ne bu ma saan julli ni mu koy langaamoo da ko doon fàttali ñaari sëti yonent bi nan langaamoo yonent bi salaam ba du mën a gi nga xam sujud bi day yag lol du bëgg si ngir bañ ñal gañ lol señ bi daana ko def señ bi nga xam ni señ bi fofu fofu la tollon ci gëm ak sëriñ bi neena it señ Abdoulaye borom deur bis bi mu xamee ne ñoo bokk bàyyi mel ni mbir ko waral neena na dañoo nekk ndiarim ndax señ bi mosaan wol leen bi féré yi neena man la ci jublu ak señ Abdoulaat ak señ ak señ Abdoulaye jaxati neena mom la jublu ci féré yi neena bam leen wolo ndiarim nak fekk na fa seen mag yi nee na sëñ bi jox leen ndab nee na ñu xéewlu ba noppi nee na ndab li xaw a am ay gaarit sëñ bi nee na boobu sax waruma ko woon a xam waaye man lii daal ginnaaw sëñ bi la dellu naa ko wommi ci jamono yooyu na ngeen fàttaliku sëñ Saliou 1915 la feeñ sëñ bi dem man set xam nga kon boobu diggante boobu gàtt na déggoo mu ne moom mënoon naa koo bañ a xam sëriñ bi defar bool bi nee na bi mu ko defaree sëriñ bi nee na ñi nga xam ne ñoo nekkoon ci biir kër sëñ Tuubaa bu ñuy dox sax da ngay dégg seen tànk yi ndax positif nee na nee na waa ji indi woon bool bi ñëw jëlaat ko yenn ko nee na li mu doon doon bool bu woyof da ko yenu wuti kees gi den ni mu naan ko déjj ci kanam sëñ bi ñu ngi koy dégg nee na suuti but bi na laweet nee na ku baax ki ne tëll taxaw daal ne daal ne ana ko jekkal bool bi Serigne Saliou ne kenn tontuwul si Ablaye borom dër bi ne ko sëriñ Saliou sama rakk ji nee na mu dem xool ba mu yàgg mu ne ma ni nga jekkalee bool ni ngay jekkalee sama mbir. وabli al ilma saxiixa wal amal asaaliha alladi yukammilu al amal yàlla nag ma may xam-xam bu leer ak jëf ju leer te mooy asaalix mi nga xam ne bu ñëwee mottali sama yaakaar digganteem ak doomi Sëriñ Tuubaa yi si yëpp lay borom dër bi doy na ci mën naa la ci jox misaal ndax Sëriñ Saalul nee na bu masaan dem Daaru Rahmaan seeti ko su masaan dem Daaru Rahmaan seeti ko nee na dañuy gungante bu bët set nee na su ma gungee ba muy bëgg a dugg Touba mu gu ma gungewaat ko ba muy bëgg a dugg Darou man mu gungewaat ba muy dugg Touba nee na ñu mujj am fu ñu jullee fajar bu buñ jullee ba noppi nee na kenn kon da ngay wàññeeku rek kon sa ginnaaw morom na kon duñ tàggale ko ñoom noonu lañ bëggante woon. dañoo wax ne seeblaat Blaat mii xam nga ku yàgg doy waar la Sèye Blaat te bëgg Serigne Saliou lool am na loo xam ne du neex a wax ci ay tele waaye lu ko Serigne Saliou ma sa wax rek gëm na ko. ndax sëñ Saliou bëggoon na ko mbëggeel goo xam ni mbëgg mbëggeel gi ëpp na maanaam ni kilifa ni ni ni ni di fonki kilifaam daal sëriñ Saliou fonke woon na ko sëñ Abdoulaye fonkel goo xam ne doy na waar te ñim bokkal bàyyi ñëpp noonu la leen defoon ndax fii lañ ma nettalee ci ndindi bàyyi góor sëy mii nee ma fu sëñ fu sëñ Fallou ma sa fanaan reer sëñ Fallou fekk na ko ma ngir te sëñ sëñ Fallou foo tuddee rek sëriñ bi dana tur ay xéewal ndax daraan wax ni ndax daraan wax ni daa bàyyi woon ak njabootam ne ci ñun daal ne daal ne doomam mi lu ñu gis rek dañ gis lu ko lu lu ñu ne mën naa ëpp loolu ndax seen waajur moo ko liggéey ndax suñ fal daraan wax naan cerey bàyyi jàmbur dama ko xonte sama doom bàyyi jàmbur dama ko xonte sama doom benn bis nag sëñ Lat ko jox do te booba alal ji amoon na valeur waaye xam na jamono yi lépp naa la ko jox ci misaal Serigne Saliou am na doomam yoo xamante ni bii ginnaawam làqu lañ am kër kii man na maa seere ñoom loolu benn métal la ñoom xaalis Serigne Touba jëm boppam lañ jot café ndax Serigne Saliou daan na wax ne xaalis Serigne Touba bu ma jëloon benn ñaar téeméer war nañoo dagg sama loxo ndax damaa sàcc ba ba sàcc laa wax. ndax ndax fam teg sëñ tubaa ci dimension moom damaa sàcc du rëy ci moom daf sëñ tubaa tax moo tax nam ko net nam ko waxee li laa koy waxee daal ne sàcc xaalis sëñ tubaa bi dana waral dee dem sawara gàtt gàtt fan dee dem sawara ñàkk barke gàtt wërsëg nen nen lekk xaalis sëñ tubaa loolu lay jëriñ moo tax noonu la demee moo tax doomam yi nanguwutoon ñu laal ci dara bo demoon ci këri bopam yi nga xamanteni bi fi la soxna yi ne bo gisoon togg di taaj ku ne ku ne la seen ki ki ki ki ci mom ay milliards la def ci bank bi ñu diko jox mu mu bëgg ci liggéey dëkk bi ku ne ndax da ngay ñew di laaj xaliss mu mun la uma xaalis man señu ba sama ko wax mas ma ñew diko di laaj ay téré mu ne ma da ngay nekk ba ma am ko te booba kess gim tiim mi fess del xaliss xaalis te la ko ci laaj mu tudd juroom ñaari junni mu ne ma da ngay nekk ba ma am ko ba ma am ko dama ko saral ne ma xam naa ne sama kees gi sax yaa ngi koy xool waaye taxul ma moom ko ndigal ba ma am ko mën naa laa jox comme misaal bi mu wootee liggéey Serigne Touba yi na day liggéey dëkk bi waa kër Serigne Fallou bi ñu ko joxee àddee daa am millions yu ñu ci boole woon Serigne Abibou Mbacké mi moo ko def mu Serigne Fallou ñëw na ko dama laa xam ndax yow da ngay koo xam boo xasee wootee liggéey sa kër gi sax mën na jomee taal ndax lu ñëw nga jàpp na ci loolu la bokk lii la lu la neex def la ko waaye daa ko won nag lii moom moo jëm ci liggéey waaye lii ñoo la ko jox fu la fu la neex dugal ko moo sax moo daan ko moo lee sax yem ko waxee noonu rek ne ko ah yow xam nga ma la ko la la ko firndeel mooy dund bi àggoon na ci daara yi 83 millions ñeenti weer dem na ba àgg 100 millions bi bi tàmbalee liggéey bi sañ aatu war a seddale dund bi ñëw ñu war koo séddale mu ne ko dara nekku fi di ko jox ay 20 millions xam nga ku la war a jox 100 jox ay 20 millions kon dund bi day doon xurànq ñii bu ñu amee ceeb ñii du ñu am diw te daawul demee noonu ci la kuñ naan sëñ Moustapha Yacine jëlaat loole sëñ bi joxoon aatu sëñ aatu ne ko delloo ko sëriñ bi bis ni ko tey ma róog dund bi sëñ Moustapha Yacine moom mii day yàlla na ko yàlla gën a taxaw ndax man mii day sukk naa ci ndax ba tàyyi mu def ko te sëñ Tuubaa tax ah nan ko wax nag waaw lu mat a wax la sëñ Moustapha ku baax la lu ma lu ma xam lu mu gàtt-gàtt téyel na si bi daara yi ñaari at yoo xam ne dundam mooy ñëw dara dootul manqué muy jënd ay nag sax di jox sëñ bi ne ko dongee nañ koy xewloo loolu nag lu mat a lu mat a wax la sëñ la ko defal waaye nag sëriñ bi jëm boppam day yéen de wóor na leen ak cant sëñ Saliou la la la fekk baax wóor na mën a sama kàddu yi sëñ Saliou du ma ci noo noonu lañ noonu lañ waggaree woon xaalis bi léegi sëñ Abdou Lahad bi mu bëggee seet sëñ bi sëñ bi mu bëggee seet sëñ bi bàyyi alaaji mbay bàyyi bàyyi bàyyi Aliou mbay mii la sëñ Abdou Lahad woolu am na naar bu mu ko daan yónni ca am na naar bu mu ko daan yónni ca Mbàkke ngir mu di ko oto mu dem naar ba fekk ku fa bàyyi Aliou bàyyi alaaji mbay neen daal man daal lu may def mooy ñetti deux jours yi nekk Sëñ fal dama ci indi benn teg rek nee na dossier bi daan dox biiri kër gi nee na dossier ñaar lañ benn bi bàyyi Serigne Bousso moo ko moom beneen bi am na keneen ku mu tudd waaye benn nee na mu nee na mu ñëw gaare booba te waxul Serigne fa Serigne Blaat dara nee na ba mu génnee pansal mbagg mi nee na noonu muy doxee nee na ak si ba ñëw jël loxo bi gàcc ko ci ci dossier bi ne ma alaaji bay nga ne oto bi fi mu jugee nee na ma xam ne wax dëgg fi sës nag ma ne ko ah ci oto yi kër gi la nee na boobu booy kër gi rek si kër Sëñ Fallu la oto ci oto yi kër gi la de mu ne ma yii Alaaji Mbay delloo ko ba mu newoon kër googu des faa war a yóbbaay kenn ku faa jëlee nee na Serigne Saliou jógee njurul mu mel dañ ne ko Sëñ Abdou doon la la si mu jógee njurul def kër Sëñ Abdou Lahad ñëw nuyoo moom Sëñ Abdou Lahad ko ah moo de fii fii nga ma fekk day maa ngi doon waaj ngir bëgg laa fekk njurul waaye daa mar joo xamante ni bii daal moo ma fa yóbbu moo moo sëñ bi daanu jël. dem mbuur wuti oto ñu jox ko ñoom noonu leen lañ doon doxee moo tax sëñ Moussa Ka di wax ni euh, waxam waxam ju siiw jooji euh, Serigne Saliou donay xalifay Bamba waaw dégg lañ jooju wax Serigne Saliou donay xalifay Bamba ma nga toog fu mbuur te attan yeen ba déglu leen wax ji sëriñ Serigne Saliou donay xalifay Bamba doomi Sëñ Tuubaa ñeenti xalifaa ko jiitu mu ba mu ñëwee mu ub làmb ji benn doom suñ taw wutu ko sëriñ te ba mu koy wax nga xam ne benn suñ mudu fa moo fi ne wala suñ fallu mu ne mu ñoom ñëpp buñ doonee xalifa ba noppi si suñ saali di wutu te jooju wax dara méju sëriñ saali wooy doonay xalifay bamba ba nga toog fa mbuur te attan yan ba te mbuur googi sëñ Modou Moustapha moo ne boo demee bokk bàyyi ma jox la kër ga ci mbuur ndax sëriñ sëriñ sëriñ Tuubaa moo leen woon moo moo leen woolu woon ba mu leen woolu woon ne damaa bëgg ngeen wulli taalib bii ku mokk may duy loolu moom nettali nañu ko daaloon xabiir ci xel kom daaray 14 nañ wulli taalib yi ku mokk may duy bañ waxee loola sëñ ba leen sëriñ bi sotti lej lañ da koo sotti sikki ba ba muy jeex tey bool naan moom da day sama doom moo tax sëñ Modou Moustapha topp ko ne ko wax ma ne ñoo bokk baay ba ma wax ma ko sëñ bi ne teg ndaam gii la ko waxee soxna Fat Jaxate moo ne ko nee ñoo nee yéen a bokk baay loolu dara niwu ci mu ne soxna si kon sama kër gi ci mbuur jox naa ko kër googee sëriñ Saliou ginnaaw sëñ Modou Moustapha moo njëkk am kër mbuur kër gu baax ci kër mooy kër sëñ Modou Moustapha googu kon mbokk yi euh, kon naa wàcc sama kàddu foofu rek allahumma salli ala sayyidina Muhammad